asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu fii ci 2STV di chaîne privée bi nga xamante ne moo njëkk ci Sénégal xibaar yi nag dañ koy dooree ci sargal jigéen ndax jigéen yi yëngu ci wàllu liggéey ndox lu mel ni SDE son euh, ONAS ak SONES dañoo dajaloo seen doole dajale seen alal ngir dem seeti seen mbokk jigéen yi nga xamante ne yoon teg na ci ñoom loxo dañ ciy àndax suñu ay reporter bu ñu nee jigéen ne jabar ne yaay loolee waral jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk ci ñetti société yi di liggéey ndox muy SDE ONAS ak SONES dajale seen doole seen i xalaat ak itam seen alal ngir rek jàppale seen mbokk jigéen yi nga xamante ne yoon teg na ci ñoom loxo te nekk fële ca camp pénal lu Liberté 6. jigéen ju toog gisul doomam jigéen ju toog gisul jëkkëram jigéen ju toog gisul ay collègue nekk ci moment yi difficile ñu ne nag li ñu def nii soutien moral la boo xam ne mën nañu ñëw apporter leen ko naam andi nañ matériel. mais suñu présence aussi saafante ak ñoom dina mën a andiwaat lu bari te lii début rek la mais bu neexee yàlla dañu yéene nouer partenariat ak ñoom maanaam de temps en temps ñu ñëw di leen di seet di leen di nemmeeku te fii dañ ko dé euh, débuté fii ci camp fas yéene ko yeggale incha allah ci Rufisque ca jigéen ña ne ca bu neexee yàlla. lu ni mel nag kii di soxna Fatou mbay di directrice maison d'arrêt bu camp mu ngi koy rafetlu nee na da di jàppale bu baax ci seeni liggéey. daf jàppale si ci suñu liggéey dafay yombal aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir seen nekkin ci biir day tax mu gën a oyof donc ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen di gërëm. war nañ leen di bàyyi xel di leen jàppale si mu néew mu bare. dina leen mën a dimbali ci préparation bi pour que bu ñu génnee mën a duggaat ci société bi. mais dina yombal tam seen nekkin fii ci biir ba karoog ñu fiy jóge jigéeni ONAS sd e, ak SONES ñu ngi ñaax askan wi ñu bàyyi xel bu baax ci ñi nga xamante ne caabi féete na leen ginnaaw ci seen i kàddu nee nañu nattu la rek bi yàlla teg ci seen kaw waaye kaso jommul kenn waaw kaso joomul kenn waaye am na ñoo xamante ne ci askan bi ñoom ñu ngi gën a di dajalewu mi lawbe yi ñoom nee nañu dañuy xool ban mouvement la ñu war a mën a taxawal ñu ko sax dippee njëriñ sa réew ngir rek xool nu ñu mën a cadré li nga xamante ne moo di yi ak ñi nga xamante ne ñoo di yattikat yi dañuy déglu ki nga xamante ne moo di Samba Wan di coordinateur mouvement ànd jëriñ sa réew communauté lawbe ak li ànd communauté lawbe moo daje tey boole mbokk yëpp dajale leen organiser leen ba nga xam ne képp fépp fu ci nekk tey di nga xam ne kat askan wi jóg na. jóg na nag parce que dañuy liggéey askan buy liggéey la ñu ngi ci informel bi ñu ngi ci public bi ñu ngi ci administration donc public bi ñu ngi ci lépp li desoon ba tey mooy dajale leen ndax dañoo tasaaroo ci réew bi dem nekk bitim réew. te fu nekk ñu nga fay liggéey pour l'intérêt réew mi alors ñun nag ñu ne kon nag jot na ñu jóg ànd jot na ñu dajaloo dem ci ay groupement d'intérêt économique xool li nga xam ne mooy métier yi nga xam ne buñ ko defee mën nañu dimbale suñu réew ñu ngi koy dimbale waaye organisation moo des te am na ñoo xam ne comité yu fi ne dañoo organiser wu donc ñu tam jot na tey ñu jóg encadré xale yi encadré Euh, acteurs culturels yi encadré artisans yi nekk ci pàkk yi di yet encadré marchand yi. tey nag massification lañ toll ñu ngi wër gox bu nekk Sénégal danañ fa dem fépp la ñuy teew duñ bàyyi fenn loolu moo ñu tax a jóg te bëgguñu itam wax dëgg yàlla kenn bokk ci askan wi koo xam ne yëgoo ko dañoo bëgg ñëpp gis seen bopp ndax ñun dañoo am lu ñu war a defal suñu réew mais am na lu ñu xaar suñu réew mooy accompagnement réew mi jàpp jàppale ñu dimbale ci ay centre de perfectionnement. ay centre de formation ñu mën a former artisans yi dans les métiers de la sculpture. bu jigéen ñi yëkkati ko wala law bi yëkkati ko am na koo xamante ne moom tamit tabb nañ ko li nga xamante ne moo di présidente conseil dialogue social mi Innocence Tab Ndiaye démb nag lañ ko ko tab ci benn xew-xew boo xamante ne kii di Mansour Sy moo ko jiite woon liggéeyam wax na ko mën a def ci giiru ñetti at dañ ciy ànd ak xaw a Mamadou Konaté ak Libaas Ndiir ci mbébétu gouvernement bi ci politique am ngir fexe ni jàmm ak dal amee ci kër liggéeyukaay yi ak fépp fu askan wi mën a nekk moo tax ñu taxawal tey bureau wu haut conseil bu dialogue social bileb haut conseil bu dialogue social nekk ab kuréel bi nga xamante ne ñetti pàcc ñoo ko sekkalu ministère en charge du travail représentant wu kër liggéeyukaay yi ak représentant wu liggéeykat yi. waxtaan ci la lépp xet ndax benn xel doyul loolu nag commission bi nga yegg nañ fii ba tey ñu taxal kuréel bu mag bi ñu tudde ko Haut Conseil du dialogue social dina ko mën a gaawal li ci gën a mën a nag jafe-jafe mooy ni nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy dund mu jëm ci lekkool bi ah jëm ci yenn secteur u santé bi jafe-jafe yooyu xam naa ne kuréel bi taxawal nañ ko wante ñoom it dina nekk loo xam ne lii dinañ ci def en tout cas gouvernement bi ubbeeku na pour waxtaan <coughs> pour waxtaan ci fànn yëpp waxtaan bi mi ngi dox ñu ngi koy poursuivre defe naa ne ci kanam yu néew xëy na dina yàlla bu ñu mayee ñu saafara loolu ñu mën cee avancer mais nekk na loo xam ne comité du dialogue social dina ko au conseil du dialogue social dina ko jël parce que loolu moo ñuy permettre ñu mën a mën a jëm kanam. buñ sukkandikoo ci njiitu au conseil bu dialogue social bi lee di Innocence Ndiaye seen bébét ñoom ñi ngànk bi la kuréel lu ñuy fexee mooy ko crise yi balaa sax ñu koy jéem a saafara. lu ñu mën dinañ ko def mooy lan li ñuy xam ne ñu ngi koy wax si euh, tubaab climat social ñu ñi gën a dal ci bërëb liggéeykaay yi seen revendication yi ñu koy bañ sax di xaar sax revendication parce que li ñu bëgg mooy dem ba nekk am système d'alerte boo xam ne ah, balaa euh, duñu bañ a bañ fay lakk sax moo ñu gënal donc ci loolu laa laa lay laa lay woo conseiller yëpp te yaakaar naa ni ku nekk rek xam nga mission bi lay xaar. liggéeykat yeeg kër liggéeykaay ñu boole ci biléb kuréel ñu ngi rafetlu biléb initiative ba tax na ñu ci àddu. ginnaaw nekk na kër goo xam ne dafay dajale liggéeykat yi ak njaatige yi leen di liggéeyloo ak nguur gi war nañ cee mën a jiital diisoo ba lépp loo xam ne mën naa indi gàllankoor ci liggéey bi ñu teel koo gàttandu waxtaan ci ba seet nañ koy fanqe balaa muy agsi te yi nga xam ne tam ñooy béréb yi nga xam ne daay daay xas na fa tàkk ñu seet nañ koy saafara nu mu gën a gaawee ñu toll ci fanweer ñoom ñu bokk ci bileb kuréel bu haut conseil bu dialogue social fas yéene amal ay jéego yu am solo ci dialogue social bi ci secteur public bi wala sax ci privé bi ñoom tamit seen bébét mooy fexe ni ñi lëkkaloo seen doole ba koom réew mi mën a jëm ci kanam gox-goxaan yi nga xamante ne dañu doon xulloo ci seen biir lu ko waral mooy xëccoo li nga xamante ne moo di seen ressource naturelle waaye lu ni mel dafa mel ni jeex na dañ ciy ànd ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Cissé ak Kaba Cissé. jàmm dellusiwaat na ci diggante communauté yi dund ci góonum ak Banganga Sibeng muy ñaari gox-goxaan yi nekk ci commune bu Adéane ñoom ñi nga xam ne kat amoon nañu ay jafe-jafe yu tukkee ci lépp lu jëm ci wàllu seen ressource naturelle. ñun bay nañu ñun ñun dëkk jëkk toogu fi ba ngaa nga ñëw ñu jàppaleen bi ñu jox leen place yi ñu toog tool yi ñun ñoo ko moom waaw léegi su dikitiir bi waxtu bu nekk ñu ni koy jàpp ñu jàpp kenn du ko dagg waa xale ba ngaa ngay ñëw dem dugg ci tool bi yéeg sa kaw dagg kii bi moo yàq suñu diggante bi waaye ñun ba nga fii aku góonum fii ñun yëpp benn lañu. lu war a jege ñaari at ñu tëral ab programme bu nga xam ne dëgëral jàmm diggante communauté yooyu te ñu ko def muy waa Caritas CRS ak plateforme des femmes pour la paix en ki leen dooleel di USAID. dañuy dooleel communauté yi ñu am xam-xam ci lu jëm ci bonne gouvernance pour ñu xam lan mooy genre. jigéen ak góor nu ñu leen di mën a dajale. ñu mun a yóbbu seen développement famille yóbbu seen développement dëkkuwaay yóbbu seen développement commune. bu ñàkk déggoo amee rek nga am ay jumtuwaay yoo xam ne da nga koy saafaral te euh, ay du am xeex du am ñu dajale leen ñu waxtaan ay waxtaan yu bari ba dem ba tënk ay kaddu yi nga xam ne ci noonu la ñu waree doxalee seen àll. sart bu bees bi nga xam ne tëral nañ ko ci ñaari communauté yi jëm ci wàllu ni ñu war a jëfandikoo àll bi rawatina xeer bu njëkk bi nga xam teg nañ ko mu jëm ci wàllu samp ab unité de transformation huile de palme ci diggante ñaari communauté yi rawatina nag jiw yi nga xam ne indi nañ ko ngir remplacer lépp lu nga xam ne nekkoon na fi ab gàncax te mu réer bokk na ci li nga xam ne programme bi gis na ne bu ko sampee fii dina gën a dëgëral li nga xam moom mooy jubóo bi ci diggante ñaari communauté yi. bu ñu jógee ci ñaari communauté yooyu nga xamante ne jàmm lalu ñu fa dañ lalu na fa dañuy dem ànd ak 3000 ndaw yi nga xamante ne ñoom la ñuy xaarandiki ci manifestation bi xamante ne moom la ñuy dëgmel semaine nationale de la jeunesse boobule édition 2015 nag tàmbale na depuis ajjuma bi ñu génn kii di ministre emploi ak construction moo ko tàmbale thèmam di citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent ñoom nag ñu ngi ñaan jeunes yi ñu gën a gëm seen bopp wóolu seen dëkk rax ci dolli gën a liggéeyal seen réew dañ ci ànd ak nga xamante ne moo di Babou Ndour semaine nationale de la jeunesse nekk na moment yu am njariñ pour ndawu Sénégal ndax dinañ weccoo xalaat si wàllum culturel sportif mbaa éducatif ñu war ci xaal ci lu toll ñetti junni ndaw te ndaw yooyu dinañu leen tàgge si domaine yu bari objectif bi mooy suuxat leen li nga xamante ne moo di valeur civique. donc ci semaine boobu la ñuy jug di ko prépare ak ndawu Sénégal yépp di ci woo ñépp pour ñépp ñëw jàpp ci mu doon réussite ndaxte. Euh, dina dina doon barab yoo xam ni xale yi dinañ fa mën a toog ak mag ñi xale yi dinañ fa mën a toog ak ñi nga xam ni ñoom lañ tuddee bis bi waaye tamit boole nañ poñ bu am solo ci wax waxu jikko yi muy li ñuy wax valeur républicaine ak valeur civique. bu ñu teewloo kii di ministre de la jeunesse nee na 250 millions dinañ ko dugal ci semaine boobu ndax ndaw yu ko si fukki régions yi ak ñeent yi. ñu gën a xamante gën a sontal te xalaat si seen biir. umpul kenn ni que am réew moom boo misewul ci xale yi ëllëgu réew ma day daal di lëndëm ëllëgu réew ma day daal di naaxsaay moo tax ñu tànn thème boobu nga xam ne dinañ ci waxtaan mbirum jikko mbirum pexe pour liggéey ngir mbirum pexe pour euh, jëmale réew mi kanam waaye surtout surtout surtout. mbirum sottante xalaat pour que xale bi nekk Ziguinchor mën a wax xalaatam xale bi nekk dakaar xale bi nekk Dakar mën a wax xalaatam xale bi nekk Ndar loolu lépp ñu changé ko weccoo xalaat weccoo gis-gis weccoo bëgg-bëgg ngir dimbali bépp ndaw bu ci nekk fa nga nekk. te mu ren ji mooy la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent nga xamante ne panel bi mooy Lamine Diack nekk président fédération internationale d' athlétisme ak marraine bi di docteur marie activités dinañ ko door ñaari fan ci weeru avril jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru avril fii ci ndakaaru Babou Ndour bu ñu jógee Ndakaaru dañuy dem fële nga xamante ne mooy Vélingara ci collège Jean Paul II foofu nag lii di commandement zone militaire taxaw na fa ngir jàngalaat xale yi li nga xamante ne moo di jom fulla ak ngor dañ ciy ànd ak ki nga xamante ne moo di Bokar Kande fii ci Kolda du lundi bu njëkk ci mois bi donc nag la ñuy amal yëkkati zone militaire numéro 6 ànd ceeg inspection d'académie bu Kolda dañ koy def ay yoon yoon ci école yi fii nii nag ñu ngi ci Vélingara mooy sorti bu njëkk bi commandant bu bees bu zone militaire numéro 6 di amal ca biti commune bu Kolda ngir yëkkati raaya réew mi collège Jean Paul II moo amal nag cérémonie bi. même su fekkente ne école privée la ñu yore waaye ñu ñuy tàggat fii du ñu ay privé yi waaye dañu bokk ak ñëpp réew mi moo tax nag autorité administrative ak politique yi dañu leen war a bàyyil xel ci loolu sax laay gërëmee commandant bi ak inspection d'académie bi ndaxte ñoom xam nañ ko bu baax a baax. li ñu jublu nag ci levée des couleurs yi nag mooy fexe nag ba élèves yi soppali doxalin ci wàllum civisme. ci jamono bii nag ñu gis ne nag ndaw ñi civisme manqué na leen te ñuy perte nag valeur yu ñu doon nawee nag suñu réew loolu waral nag colonel du gay di leen fàttali. Euh, ñun dafa bokk suñu mission ñuy yar xale yi ñu leen di euh, euh, yar ci wàllu xam sa réew xam sa réew bëgg sa réew mais ak ràññee ñu ràññee lan mooy raay réew mi ñu raay lan mooy bàkk réew mi di wax hymne Euh, loolu tax na dañuy wër école yi de temps en du Kolda ak la ñuy yem dañuy dem tamit yeneen département yi waaw ah, fekk ñi nga xam ne ñoo fa nekk bokk ak mbir mi ah, ndax euh, éducation di jàngale dafa nekk loo xam ne lu am solo ndax nee nañu xale yi tey ñoom ñooy nekk magu ëllëg donc war nañu def suñu kéem kàttan pour que xale yi ñu ñu suuxat leen ñu jox leen li nga xam moom lañ soxloo ci wàllu jikko ndax jikko bu fekkee dafa sooxe li nga xam ni mooy wax li ñuy wax développement du mën a nekk lu mën a xam-xam tamit du mën a nekk. activité bi nag bokk ci li ñuy naan concept armination maanaam lëkkaloo bi war am nag diggante l'armée bi ak askan wi. ndaxte Saare Yoba defar nañ fa ay classe tabax ak réhabilitation am na feneen ci biir Kolda foo xam ne fii vraiment def nañ fu rafet rafet remblayage construction réhabilitation yooyu yëpp def nañ ko fa donc loolu nekk na euh, jëfin yoo xam ni jëfin yu rafet. yoo xam ni armée mi ngi koy def taxawu population yi bu loolu weesoo kër diine yi itam kër làbbe am na yu mu fay def am na grotte bu mu fa tabax kër diine yi muy musulman yi aussi da leen di jàppale. ni mu faral di amee noonu la jeexee dañu daal di récompenser élèves yu gën a ràññeeku ci at mi ci seeni i wàllum jàng. ba tey dañuy desex soldats yi lu tollox 1142 soldats yoo xamante ne wàññi nañ ci cinquante 52 jigéen ñoom nag jot nañu génn ci contingent 2015 jot nañu pare seen formation ba jot seen drapeau xew-xew bi nag ñu ngi ko amal ci 12e bataillon Dakar Bango dañ ciy ànd ki nga xamante ne moo di Moussa Diagne ak Abdou Boye lu tolloog junni ak téeméer ak ñeen fukk ak ñaar ci ay soldaar te nag juróom fukk yeeg ñaar yi doon ay xale yu jigéen na ñoom nag ñoo doon jot li nga xam ne moo di seen gannaaw nag bañ leen tàggatee lu tolloog ñetti weeru yàlla yoo xam ni dañ leen doon xamal naka la xale bi war a mën a mel bu fekkee ni dem na nag ba nekk ab soldaar kii nag di colonel Thiam ci teewaayu nag ki nga xamee ni moo jiite comme zone bi ak ñi nga xamee ni ñoo yoroon encadrement bi rawatina nag ñi nga xamee ni ñoo di seen ay way jur kii di commandant bi moom xamale ne nag xale yi moom kontaan na lool ndax bés bii doon na bés boo xam ni bu am solo ndax da leen di dugal ci biir njabootu soldaar si. dañ doon wan xale yi seen drapeau boo déggee ñu ne wan xale yi seen drapeau dina la jaaxal ndax danga naan xale yi chaque jour ñu gis drapeau bi mais da xale yoo xam ne dañu jóge seen kër boobook léegi mat na ñetti weer ñu indi leen fii dajale leen di leen tàggat di leen tàggat ci naka lañuy jëfandikoo fetal yi naka la ñuy defaraate seen yaram ba mu nangu coono naka la ñuy jànge xeex ak sa loxo naka la ñuy jànge xeex ba nga xam ne képp koo xam ne danga jógoon tey pour dal ci kaw Sénégal ñoom ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne ñooy aar Sénégal ñu tàmbaleek ñooñu ñu tàmbaleeg ñoom loolu boobu ba léegi fi mu nekk nii def na ñetti weer ñun ñi nga xam ne ñoo leen di tàggat kat xale yi agsi nañ foo xam ne jot na nag ñu wan leen raaya réew mi bi nga xam ne moom moo leen di dem ba jaral leen seen bakken tey foofu lañ ñëw ndax xale yi am na foo xam ne fi mu nekk nii àgg nañ ci te tey ku bëggoon dal ci réew mi ñoom mën nañ cee part xale yi nag gannaaw nag ba ñu wane seen bopp wane tamit li nga xamee ni xam nañ ko ci ñetti weer yi wane nañ li nu mën nag ci wàlluk ngànnaay goo xam ni ci wàlluk fetal la moo xam nag ci yeneen yu ni mel la ci li nga xamee ni noonu lañ leen ko jàngalee. loo ah. jël naa armée ndax dafa dafa di xam ne dama ko yàgg a bëgg sama dëppi sama xale ba léegi. moom moom laa yàgg a choisir. défilé militaire moo jeexal nag li nga xamee ni moom moo di bés bu mag bi ci xale yi nga xamee ni tey jii génn nañu nag bokk nag ci ñi nga xamee ni tey jii daanu teewal réew Sénégal ci fépp foo xam ne rek soxla nañ leen foofu ñoom nag ñi nga xamee ni ñoo bokk. ci saint wi nag ay responsable yi nga xamante ne ñoo nekk ci service hydraulique ñoo amal benn randonnée maanaam dañ doom tàggat seen yaram ñoom tamit ñu ngi rafetlu ndox bi nga xamante ne sellal nañ ko ba ñu mën ko naan te dara du la ci fekk fële ca Dagana ak Podor dañ ciy ànd ak nga xamante ne moo di Adama janoor di chefu service régional bu bu hydraulique ñu permettre de temps en temps ñu def suñu bilan fu ñu toll ci accès d'eau potable au niveau ci ci xaw population yi encore ci ci ci dëkk yu ndaw yi ak ci ci kaw taax yi xam nañu ci région de Saint-Louis suñu defee taux d'accès am nañu taux d'accès boo xam ne da xaw a bu xaw a bu baax mais nag am na ay zones yoo xam ne ba léegi am nañu ay jafe-jafe mooy jéeri gi mooy Dande Maayo mooy des Lille ak Amorphile loolu moo tax am nañu ay programme ambitieux yoo xam ne ngeen chef de l'État di wax ay 300 forages ngeen ay projet ak programme yu bari yoo xam ne ñoo ngi ko tëral pour que euh, léegi ci date yu ak délai bu néew ñu mun a euh, atteindre euh, le taux universel d'accès à tout le monde à une à une eau de euh, bu nga xam ne qualité bi dafa baax njëg bi yomb. taux d'accès bi saint bi de la région de Saint-Louis c'est 84 virgule 1 pour cent ça c'est dans le monde rural mais xam nga taux bi ba pour cent mooy daanaka bëri daanaka am nañu taux bu baax mais soo gisee am na ay gox goxaan yoo xam ne amuñu amuñu accès à l'eau loolu moo tax ñun nag suñu ambition mais képp koo xam ne doomu Ambey fu mu nekk fu gën a sore mhm. ñu indi ndox bu sa ndox bu sell bu sa buntu kër ak tamit euh, njëg bi tamit yomb ba léegi duñu jur fi nga xamante duñu jug fi nga xamante ne mooy ndax géej dañuy dem xool Gaston Berger étudiants yi fa nekk jot nañu jàkkaarloog seen professeur waxtaan ci li nga xamante ne moo di leadership dañ ciy ànd ak ki nga xamante ne moo di Ousseynou Gueye di président forum jeune leader Afrique ci micro Moussa Diagne ñu université yi xaw nañ am ay jafe-jafe quand même xaw am université Saint-Louis université bu baax la comme yeneen université yi si yi si Sénégal aussi waaye léeg-léeg mo mu mu am quand ay jafe-jafe ay jafe-jafe yoo xam peut-être nit ci ñoo dul déggoo ñàkk waxtaan moo koy indi ñum lu ñu gëm mooy poser ay action mooy indi débat mooy que nit ci bu ñu dajaloo ñoom ñëpp waxtaan solution dina si génn nit yi mënuñoo dajaloo mooy lu ñuy wax concertation nit yi mënuñu def concertation ba pare si ba fay solution du génn say bu concertation amee daay solution moo si génn donc nag nañ ñëkkee concertation boobu moo gën nit yi di def grève après ñuy soog a woote concertation ñun daay en tout fépp fu ñu toll bépp diir bu ñu tollu daay lu suñu wargal mooy ak nu ñuy gisee mbir yi mooy dañu woo nit ci pour que ñu waxtaan si suñu université bi nu mu war a doxee si yan action leen war a poser hmm, ban melokaan la ku nekk war a am pour que université bi nekk dëgg-dëgg université bu dox université boo xam te ku fi ñëw di am xam-xam bu baax waaye au delà de xam-xam bi sax di nga nekk nit citoyen bu baax di nga nekk citoyen boo xam mën na defaan dëkkam mën na défendre ay valeur am te dina tax ba réew mi développé. boo waral boo demee campus social euh, salté bi wàññeeku na fa bu baax baax naam sax amul woon salte bu rëy waaye gën na jàppale étudiants yi pour que ñu am fu ñuy sànni seen verre à pour que ñu am fu ñuy sànni en tout cas euh, seen hors de vue dañuy toog ba léegi fi nga xamante ne moo di ndar géej di dëkk ñaare yi ndax euh, bu ñu nee siñaare xelu ñëpp dem ci culture 23e édition festival international jazz nag ñu ngi koy waajal le 20 ak 23 mai bi di ñëw budget bi nag li ci génn toll na lu tollox 214 millions dañ ciy ànd ak ki nga xamante ne muy Moussa Diagne gannaaw bañ ko jàppee ci ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mais bi nga xamee ni moom la ñu jëm vingt troisième édition bu festival international bu jazz moom nag dina indiwaat ay musiciens ci wàllu jazz yoo xam ne ay kàngam lañ ci ci noonu nag ci ab jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi tax na nag comité d'organisation bi ci baatu maître Diop wax ni nag tête d'affiche ren gi doon na nag ki nga xamee ni moom trompettiste jazz américain la ñu tuddee ko Wallace Ronny moom moomu nag yàgg nay ànd ak nag ci ay yoon ki nga xamee ni rek moom moo di Miles Davis. gis nañ ko nee naa leen États-Unis mooy tête d'affiche bi euh, Wallace Moni euh, trompettiste la Grammy Award Awards dina animé ay ay ay concert fële ci au niveau de machin di ay ay atelier ak les ak les ak les le le pritali militaire parce que articulation moo aussi moom la ñuy seet entre musiciens étrangers yi ak musiciens locaux yi pour que ñu jéem a surtout xale yi boo ñëwee échanger place fédérale bi dina am procession bu ci am certainement moving jazz day nekk wala ñu indi ay fanfare yu ñuy jazz ci noonu nag président association Saint-Louis Jazz wax tamit ni nag budget bi nga xamee ni moom la ñu soxla ci festival bi nar naa toll ci ñaari téeméeri millions ak fukk ak ñeent ci sunu koppar. kopp kopp koppar yi moom ñëwagul benn koppar ñëwagul waaw fi nekk am na am na ni ñu pexe ñuy def nag. pour que mu avancé mooy pexe fexe pexe ak ñu mel na man en attendant que koppar yi egsi bu koppar yi moo gaaw gaaw egsi moo gën ñu ngi ñuy woo euh, appelé euh, ñuy woo demandé autorité ñu gaaw ci loolu parce que lu ñu rendre compte rek lu ñu fi indi dañoo ñii lañ ko ñii ñaar fukkeelu yoon ak édition bi nga xamee ni moo di festival international bu jazz nag thème bi nga xamee ni moom la jàpp moom moo di jàngoro yi nga xamee ni ñoom nag dafay jóge ci wàllu xol wala bokk yeneen yi nga xamee ni ñooy ànd ak moom ndax nag gis na ni fi nga xamee ni moo di ci Saint-Louis moom too bi moom élevé na lool ci ñi nga xamee ni dañ ciy faatu. mbokk téléspectateurs yi ñu dem euh, jàng ëtt yéenekaay yi gën a fës Moussa Sène ba jàmm nga fanaane askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu defaxu nag lu ay di jàmbat la tribune yéenekaay yi moo xëyeek ak ñun ni ko dàng fang ci xëtu yéenekaay bi ni Macky Sall yëkkati na nag ay coppite amal nag ak yëngu tëgg nga xamante ni yëngal na lu jëm ci wàllu kurub dëgg gi ñu ne nag cour suprême fi mu toll nii amal nañ ay coppite gu rëy ci xët mu njëkk yéenekaay bi la ne ko dang fàng yamu ca de ñu ne nag jàppal tur bi mu ni Cheikh Badio kamara moom de la ñu tabb mu daal di jiite cour suprême yamul ci loolu mooy fëse ne nag addu nag ci mbirum Karim Wade waaye yamuñu ca de Cheikh Tidiane Koulibaly tabb nañ ko moom nag mu doon procureur général ba Yaya Abdou Dia kooku moo di kan nee na sanctionné nañ ko de yéenekaay bii di la tribune du ñu xamal ni ñu rëq nañu ndiggam libération yéenekaay lañ daan domet mu daal di ànd ak ñun mu ni Yaaya Abdoul Dia kooku nag mooy assesseur bi nga xamante ni moo démissionné woon ci CREI yi waaye lu mu ci mënti doon daal xamal nañu ni ñu tabb nañ ko ca cour d'appel bu Ziguinchor waaye li yéem ñëpp moo di lan nee nañu cour ba de fantôme la amul waaye yamu ca de am na leneen lu mu toftal ca biir bay wane ni nag lu wëndu li nga xamante ni moo di dogal bi Le Quotidien yéenekaay bi sori wu ci ci xëtam mu njëkk la ni dàng fàng dogal bi Macky Sall mooy taamu tey tànn lu jëm nag ci àttekat yi nga xamante ni ñooy nekk ca cour suprême ba mu dellu si ba tey ak seen i nataal ni ko dàng fàng ci xëtu yéene kaay bi lee may ko bët le témoin mel ni ku ciy indi ay seede du ñu xamaleeg ba tey nataal bi nga xamante ni moom moo di Mamadou baajo kamara moom mi nga xamante ni nag la ñu jox lenge yi muy buur di bu mi mayal bët yéene kaay bi ci xëtam bu njëkk la ko xamle booba la jamono nag Sud Quotidien ànd na ak ñun daal di addu ba tey ci njiitu réew mi di président ma ki Sall mayee ko ci xëtam bu njëkk waaye nag wax na ci lu jëm ci promotion bonne gouvernance gouvernance yorin wu mucc ay bit rafet ñu ne ci texte yi rafet na loolu de wax ji ak rafet waaye nag de lum ci mënti doon jëf ja moo mel ni lu fi mu toll nii Macky Sall un géant au pied d'argile noonu la ko yéenekaay bi dippee enquête yéenekaay yi mel ni ku ci indi ay firnde ndaxte nee nag le grand cafouillage mu mel ni fi mu toll nii daal juuxa jalaa ñoo dafa am ci xët mu njëkk yéenekaay bi la ko indi te lenn waralu ko lu dul déclaration patrimoine yi ak OFNAC Nafi Ngom Keïta fi mu toll nii nag na bu ma waree wax rek laay wax réew mi ngi koy xaar am déet réew mi quotidien lu lum ci mënti doon àdduna ci leneen lu nga xamante nii njaw a ngay desinu xambin ba léegi ak procès Karim Wade bile ñu ne nag waa UJTL fi mu toll nii seen bakkan lañ ci teg te Karim Wade jaral na leen ko fi mu toll nii temme kay li nga xamante ni moom la ñu def moo di lan seen juróom-ñaari mètre percal jënd nañ ko teg xeex bee leen ko jaral ci réew mi quotidien lañ ko fës mujjantalu PDS lu muy doon laas yéen a kaay daan nañu xalaas ndaxte kat Habib si yëkkati na ay kaddu ni plan B wu PDS man mii la yëral yéen bi moom ñu ni ko dàng fàng ci xët njëkk yéen UJTL ni nga xamante ni noonu la ñu taxawee temm rek fa seene nag daal di taxawal bataay bi te kenn waralu ko nag lu dul doomi Abdoulaye Wade jile naam ña ngay wax ci candidature booba la jamono grand place yéen kay bi ma ngay ànd ak ñun ci Macky Sall ni fi mu toll nii kay ubbi na bunt yi fa seene nag nu mu gën a mënti dajale rek lu gaa yi mën di gën di ñëw rek ñu massifier lu jëm ci parti bi Abdou Fall nga ca groupe de riposte ba yéen bi di grand place ba tey du ñu wax ni ñu ralliement yi de fi mu toll nii bëri na gaa yaa ngay fàq rek ca saint ñu wax ni ñu Macky Sall ci tànk yi muy dox mel na ni daje na ci ak artisan yi nga xamante nii nag ginnaaw bu mu leen recevoir ca palais de la république artisan yi nag taxaw nañu ngir falaat Macky Sall 2017 gouvernement bi naam ak élimaanu jëwrin yi ñoom nag ña ngay fësal ci xët mu njëkk yéenekaay bi di la Soleil li nga xamante nii nag mooy lañ cay dox Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom sax de xamle na ni lu tolloog benn milliard dinañ ko def nag ngir daal di aar suñu waax yi maanaam littoral bi foofe noonu ca goxu Mbaaj yéene bi di la soleil ba tey lañuy ñuy àndal ngir nag lu fay ay tey aar lu jëm ci wàllu jàmm fii ci réew mi installé nañu au conseil du dialogue social kañu tabb ca bopp ba nag di Innocence Ntap Ndiaye yéene kay bi di la Soleil bu ñu sukkandikoo ci moom ña ngay sàkku nag ci syndicat enseignement di njàng mi ak santé wér-gu-yaram ngir nag ñu daal di amal ay waxtaan direct info la ñuy jàll mu ànd ak ñun ci xibaar bi nga xamante ni moom lay fësal ci xëtam bu njëkk moom nag xamle nañu de bu dee jaay fonde amul pertement ñu ne ah dawal taxi de mel na ne kon it amul pertement ndaxte kaat gis na ni chauffeuru taxi ku ci amul sa versement ci xaalis am ko ci versement ci lenn ci client yi li ñuy proposé chauffeuru taxi si nag ñoo ngay nettali de nee na ñu yenn ci client yi boo leen jëlee joxe bërëm de dootu la ci fekk yenekaay bi di xootal ba tey ni nit lu ci bari ci ñoom nag xam nañ leen demkat yi de joxe njaay mee leen gënal joxe xaalis rekk de lii di comp as lëf ci yéen kay jaa ngeen jëf. Moussa Sène ñu ngi lay jaajëfal fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru benn waxtu di leen dig daje juróom-ñaari waxtu. Thank you.